أشهد أن محمد رسول الله na Muhammadur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 rabbi auzu bika min hamazati sayatini wa auzu bika rabbi an yaxduruun bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina wa mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain bokki jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi sëriñ bi di ñaan yàlla sunu borom tabaraka wa taala mu yàggal ko fi tam am wér ba yeggale mboolem naa la mi tañ ànd ko moom mbokki jullit yi tey dañoo delsi ci alquranul karim ak ngëneel lim am rawatina itam ku koy jàng yan nga war a sàmmonteel ndax xutba al imam bi tey mi ngi jëm ci loolu mu am liggéey yoo xamante ni bu làmmiñ wi dee yëngutu di tudd arafe itam xool ba war na ko waaj yooyu nag bari na lool waaye dañ ci tudd juróom rek ba ci njëkk mooy kuy jàng alquran benn nga nekk ci biir ak julli wala nga nekk ci bitti julli di nafar alquranul karim bokk na ca la jiitu ci li nga war di bàyyi xel mooy nga xam màggaayu wax ji ngay wax maanaam saw làmmiñ la muy tudd ci ay wax nga xam nam màgge nga xam nam kawe itam ndax loola ca ngay xamee ngëneel li yàlla sunu borom tabaaraka wa taala ak yërmaane jim am ci defam yi ba tax la muy kawe kawe mu wàccee boppam ba mën a dégtal mbindeefam yi lu leen di jëriñ ci kaw suuf di leen jëriñ ci àdduna yitam di leen jëriñ ci seen àllaaxira kon loolu nga xam ne moo njëkk mooy nga xam ne li ngay jàng muy alquraanul karim nga xamante nga xam ne lu màgg la lu kawe la loolu danga koy war a bàyyi xel yow mi jàng alquraanul karim moo xam nga nekk ci biir ak julli wala nga nekk ci bitti julli gi bu loolu jàllee boo xamee ne li ngay jàng muy mooy wax yàlla war ngaa xam ne yàlla moomee ku màgg la te kuy jàng ay waxam nanga xam ne mu ak waxi keneen wala waxi leneen kon kuy jàng alquran war naa teewlul màggaaya kay wax la muy jàng te wax la muy jàng mooy borom bi tabaraka wa taala ndax alquran lay jàng te wax yàlla la loola nag na mu koy defee mooy day xam ne jàngut waxi mbindéef mu xam ne kon li muy jàngkat nekk na ci kawe foo xamante ni kawe ba mu kawe am na dayoo ndax borom bi tabaraka wa dafa wax ne laa yamassuhu illa almutahharun ca sóoratul waaqia laaye juróom ñaar fukk ak juróom ñeent mooy alquran ñi koy laal mooy ñu laab ña kon kaamil bi rek ku amutug laab mayuñ la nga laal ko ginnaaw nag ne doonu ne loxo bu nekk war naa mën a laal alquran lu dul loxoy ña laab ña naka noonu itam doonu làmmiñ wu nekk war naa jàng alquranul karim doonu ne itam maanaaya yépp itam doon ne maanaa yëpp itam xol bu nekk man koo dékku waaye nag lay tax nga man loolu mooy nga xam màggaayab kay wax wax joojee te màggaay boobee nag yaa ngi koy mën a xamee ci xalaat melokaan ak tur yi borom bi tabaaraka wa di tudd ci biir alquraanam ngay bàyyi xel yow mi jàng alquraan itam mbindeefi yàlla yu màgg ya lu mel ne aras ak kursi ak asamaan yi ak suuf ak li nekk diggante asamaan ak suuf ci ay jinne ak nit ak i rabi àll ak i garab nga xam ne ki bind yooyu yépp mooy aji am kàttan ja mooy ka nga xamante moo leen di wërsëgal te ki leen di wërsëgal kenn la te mooy yàlla tabaaraka wa mi ngay jàng ay waxam nga xam ne ñoom ñëpp itam nag ci xeeti mbindeef yooyu ñi ngi nekk ci ci ron kàttanam moo leen di xéewal xéewalal ci ngëneelam waaye itam buñ defee naka sudul noonu itam moo leen di mbugal ci maandoom mooy boroom sañ-sañ ba nga xam ne dafa waxoon ne ñii aljanna laa leen baaxe fa la ñuy tàbbi awma ku ma ci faale waaye moo waxoon ne ñële itam sawara lañ jëm wala iyaasu billah amu ku ma ku ma ciy faale fariqun fil janna wa fariqun fi sànir te loolu ka am kàttan joogee mooy aji màgg ja mooy aji kawe mooy yàlla tabaraka wa taala kon yow miy jàng alquran na nga xam ne waxi ki ngay jàng wax ju kawe la waaye ki ko wax itam ku am ak kawe la muy ñaar ñetteel ba yow mi jàng alquran itam war ngaa teewlu sab xol bàyyi xalaati àdduna yépp moo tax nag tabaraka wa li mu waxoon yàlla yaxya ne ko yaxya xudil kitaaba bi quwa ca sóoratu Maryam laay fukk ak ñaar boroom xam-xam yi dañ ko firee ne bi xuwa jooju mooy na nga jàpp téere bi ak kàttan ak doole dañoo wax ne mooy na nga ci góorlu farlu ci te foofu sa yitte jëpp itam nga jëme ko ci téere bi bañ koo jëme ci leneen moo tax boroom nit ñu baax ñi xam ne xamoon nañu loolu am na ci ñoom ñoo xam ne suñ masaa jàng ab aaya ba jàll waaye gis ne amul lenn lu des ci seen xol dañ koy baamtuwaat ngir bëgg maanaam a des ci seen xol bañ mën koo jëfe ji ñeenteel ba mooy settantal yow mi jàng alxuraan war nga koy settantal te settantal ginnaaw boo teewloo ci sa xol lay mën a ñëw borom bi itam fonk ko lool ci kuy jàng alxuraan ba taxoon mu ne kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaru ayaatihi wa liyatadakkara ulul albaab alquran yow mi koy jàng war nga koy settantal moo tax nag al imaam ali karamallahu wajhahu waxoon ne laa xayra fi ibadatin laa fiqha fiha nee na jaamu yàlla guñ tegut ci xam-xam amul solo waaye wala fi qiraatin laa tadabbura fiha njàngam alquran mu amul settantal itam nee na amut amul solo moo tax tubaar Tuubaa radiyallaahu anhu waxoon ne benn aay rek nga nafar ko jàng ko settantal ko fa yéene ko jëfee moo gën nga wàcce kaamil boo xamante ni settantaloo ca dara wa aayatun waaxidatun tudd birat fiihaa tafawqu xatmatan anhu xalat moo tax ña xamoon loolu itam ku mel ne Abu Dar daana nettali na yonent bi aleyhi salaatu wasalaam jiite na woon ak guddi di naafi la waaye guddi gépp benn ab laaya daanaka la ca doon baamtu te mooy in tuaddibhum fa innahum ibaaduk wa in taxfir lahum fa innaka anta al azizul hakim ca suratul ida laaya téeméer ak fukk ak juróom-ñett nga xam ne daanaka guddi gépp bi yonent bi naafila laaya jooju nee na moom la doon baamtu loola xëy na kon settantal ga moo ko yóbbee lépp am ci nit ñu baax ñu ko xam ne waxoon na itam ne léeg-léeg mu ubbi aw saar la ma cay fekk ci ay maanaa ak settantal ga di ma yóbbu ba nga xamante ni duma jeexal saar woowee lu dul ne fajar dafa jot am koo xamante ni ne saaru Huud rek muy sóoratu Huud am na ca juróom-benn weer di ko baamtu te jeexalu ko am ku ne ci nit ñu baax ñooñu danaa fexe ba ay bis ma wàcc kaamil waaye am na kaamil boo xam ne itam par weer laa koy wàcce am na kaamil boo xam ne par at laa koy wàcce ba yegg ci ne am na kaamil boo xam ne maa ngi nii fanweeri at jeexalaguma ko loolu lépp ngir settantal kon ñu xam ne alquran ku koy jàng wala nga koy déglu war ngaa bàyyi xel yu yu baree baree bari ngir mooy tax nga mën caa jariñu moo tax am ñu ne ñoom daal dafa mel ne kuñ ku ñuy liggéeyloo koo xamante ni léeg par bis lañ lay fay wala par ajjuma muy par ay bis wala par weer wala par at mooy noonu la séddalee ay yëfam kaamil boo xamante ni par bis la koy wàcce wala par ayu bis wala par weer wala par at kon yàlla nañu yàlla xiir ci jàng alxuraan te di ko settantal te yàlla nañu yàlla boole ci ñi nga xam ne lu ñu ca jàng ñu koy jëfee wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الحمد لله الذي أدبنا بالقرآن الكريم وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم ودعانا إلى مكارم الأخلاق والموعظة الحسنة والأسلوب الحكيم قال تعالى في كتابه الكريم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين وسيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه وزمرة المؤمنين إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس القرآن منبع العدالة في كل زمان ومكان وإنه لتنزيل من حكيم حميد منان أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وما فضل دينكم على سائر الأديان إلا بمعجزة الدهور وآية العصور كتاب الله القرآن فإن جعلتموه بين أيديكم كان لكم قائدا في الآخرة إلى المغفرة والرضوان وإن جعلتموه وراء ظهوركم kaana lakum saa'iqan fi l-aaxirati ilaa r-radaa wa n-niiraan kayfa laa wa huwa al-lu'lu'u wal marjaan wa ya'murunaa bil birri was-silati wal amaan wa bil adli wal ihsaan وإيتاء ذي القربى حقه والمسكين والمدارات مع الأقارب والجيران وينهى عن الفحشاء والمنكر والإسيان وفي الحديث أهل القرآن هم أهل الله وخاصته وفقنا الله لمتابعة الحق حيث كان وأجارنا بفضله من متابعة النفس والهوى والشيطان آمين الحمد لله الذي جعل المؤمنين إخوة ونعمة الأخوة في الإيمان وصيرهم بين الفرقة كالبيان وكالبنيان والصلاة والسلام على نبيه الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ذوي الرضوان والتمكين أما بعد فيا أيها الناس إن فضيلة الصبر من أعظم الفضائل ومنزلته عند الله من أشرف المنازل ومن كان صابرا فهو المؤمن الكامل وينال ما لم تنله الأوائل وبه فتحوا البلاد وأظهروا الإسلام وقهروا نفوسهم وصاروا أقوياء وعلماء وأغنياء وسادة الدين والدنيا وسادة الدنيا والدين فبالصبر يجد كل إنسان في موقف القيامة ما قدمه من صالح الأعمال في الديوان فيتجلى الله له بالرحمة والحنان ثم يصب عليه الثواب والرضوان ويقول سلام عليكم طبتم يا أهل الإيمان ادخلوا الجنة بالأمان وقد رضيت عنكم بما صبرتم من الامتحان ورضي عنكم سيد ولد عدنان صلى الله عليه الكريم المنان يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين آمين allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muhammad rasulullah hayya ala salaat hayya ala falaah qad qaamat salaat allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah ma daamat e allahu akbar allahu akbar alhamdulilahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله هاء نحوه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 allahu akbar allahu akbar allahu akbar asalaamaaleykum. asalaamaaleykum.